waaw salaamaaleykum bay bay maa ngi lay nuyuwaat bu baax bi may liir sa message bi daa fekkoon ma nekk ci voyage moo tax mënu woon a répondre ndax bruit bi faral di am ci milieu bi ma nekk euh, yow dama laa yàgg a wax ne bu fekkoon fekkoonte ne yoon wi doxin wi ci war mu ngi ko doon doxe ñu teg ko ci organisation bu mat sëkk pour soutenir rek Touba ak mouridisme lépp tegu ci yoon te xam-xam lal ko nëgën yi dana fekk ñu def la héros ndax ku mel na yow ku ko am dañ ko war a fonk waaye nag li tax ma wax loolu mooy dellu siwaat rek ci li ma waxoon ci kàddu yi jëkk yi ne yoonu murit ñi ëpp ci ful bi dañoo nanguwut jàng xam-xam nangu ñëw gëstu liñ bëgg di dunde rek mooy ay karaama muy xar baax te ku la ci gën a safo làmmiñ daq laa fenn daanaka rek ñoom lañ teg ci kanamu télévision yi yu nekk ci fu boroom xam-xam war a nekk rek ab jahil lañ koy teg boo xam ne si la muy wax du tegu ci dara rey bi ba temps bi jeex takk te ñooñu nag fi ñu ne foo leen foo foo leen fekk ak fiñ mën a nekk yépp lii seen lii seeni mbir fi mu ne mooy ay wax lañ bëgg di dundee nangu ñoo xëy liggéey nangu ñoo putti ko toj seen ndoor di ñooy tan yi sëñ Tuubaa doon wax naan foo leen fekk dañuy bëgg a yàpp te nangu ñoo liggéey bokk na ci liñ liñ mën a it boroom xam-xam la bañ a gis képp ku yor xam-xam boo waxee ñu dal ci sa kaw loola dem na ba andi salusi ci ñoom ba nit ku baax mënatuñoo teg ci yow bët maanaam de li ñu bëgg mooy nit ku woyadi ba pare doon kilifa ñuy làmb xaalis di la jox ñuy wër di la campagnal di la fenal di wax ci turu sëñ Touba te sëñ Touba dama ne tur bi donc bu fekkoon réew mi teg nañ ko ci yoon communauté mouridisme organisé organisé organisation bu jaar yoon tur bi dong kenn kenn du ko tudd te amatoo xam-xam amoo xam waaye sëñ Tuubaa ngi ci mbedd mi léegi nu leen neex lañ koy saame kum neex yëkkati kaddu kum neex fent kum neex fen ndaw yoo xam ne si dañoo toll ci war a futtiku liggéey yi daani seen doole nanguwuñ ko def bëgg a jël maanaam yoonu sëñ Tuubaa bi maanaam fas yéene cee bëgg di dund dundin woo xam ne si ajoo ko lu dul netti la ay xarbaax di fen di teg dégg nga ci la ñuy solo ci la lekk ci la ñuy naan ci la ñuy tukki lépp ci lañ koy def xam nga ne dof bii day waxam ji mu doon wax tey ci gawang ko xone surtout jëmmam ji xam ne am na leneen lu mu war lu nëgën si loo xam ne waroon na ko waroon naa fekk mu bañ a am temps ci dara waaye waxewul xam-xam lii xew ci yoon wi yàgg cee xew rek lañ ciy def la ma daan wax ay jamono boo demee Poroxaan ña ngay jël garab wikk koy sagar ba mu fees dell boo waxee ñu naan fii la soxna si daan bojjeek taal baa ngi fi dàgga jaa ngi ku barkeelu nangam dof yi ñëw foofu futti seen yaram yi di xalanku naan fëtëm fëtëm fëtëm fëtëm da ngay da ngay dem jàng ngi ne ñii daal mala sax maanaam bëggu tamel la ñoom loolee moo tasaaroo nag ba fi mu toll nii ne occupé secteur yëpp ba waral na karawaanu gabon bii am ci karawaanu gabon bii moo amul importance benn importance amu ko lu dul ni ma ko jàppee rek mooy xeexukaay la dañ koy jël di ci di ci xeex ba pare di ci dund ndax mboolem koy ab waxkat te amoo xam-xam te waral na jàng fi mu ne dañ laa mel ne lu la recruter boole la ci ful bi yaa yore coow li yaa yore fen yi yaa yore campagne bi yooyu yëpp yaa ko yore rien pour sëñ Mamour mi nga xamante ne si yàlla dogal na mi ngi liggéey liggéey bu am importance bitim réew te xam-xam lal ko teñ gis na mi ngi avancé ñu bëgg ko xëy xëy saboté ko ba yàqali bi doon def lépp bañ mën ko kaase ci Sénégal yëpp ndax lii ñuy def ci eh, gabon gi fi mu toll nii événement lañ ko jàppe te am na ñooñ ci la ñuy dund am na ñooñ ci la ñuy ñoom ci la ñuy dund muy ñi koy organiser ak ña leen ko sant ak ña koy teewee ndax benn njariñ da ko amul la ñuy wuti ci sëñ Touba di ko topp ba gabon loola sëñ bi digal na leen ko ci téere yi la dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen jëfe ko ku sëñ Touba ñor kay la la sëñ Touba digal ngay def waaye loo xam sëñ bi digalu la ko te yow mi koy def la nga ci jublu mooy noo mën a dunde rek ci koy tam nga ci mën a dundee te kenn mënu cee jariñu ci say wax ndax xam-xam loolu ko te amul ab importance ñu jël temps bépp sacrifier ko jaay ko su ko defee bu am bay géey si la jógee fee nag di wax la ñuy bëgg mooy gaaw ko noppiloo Mamour Mbaye mii xam nga ne daaw bu demee bay dal ci sa kaw xam nga ne booba nga xam ne jafe-jafe am na te koo ca gis nag am na kilifa gu muy làqatu ñii ñëpp am na kilifa gu muy làqatu kër sëriñ si la ñuy topp rek di wayaan ak fen rek ak jël bokki jàmbur yi di di di di fénqale kër guñ dem yóbbu fa dara kër guñ génn jële fa dara yóbbu ko feneen mbokk yi mën a toñoo ànd kenn mën a tota waxtaan ak sa mbokk kenn mën a tota am benn secret ndax ñii xam nga ne kii fenam yim fen ci garab boo ko mu naan ci la sëñ bi bindee maraaxim ak ci la sëñ bi defee nangam te yow loo xam ne si gëstuwoo ko benn source mënoo ko am bu leer lu la wane na ab star nga dégg nga boo paree ñu jël site internet yi teg la ci bu màggal jotee ngeen nekk ci kër sëriñ si di wër mel na ay tam yu war a toll ci jàng jànguñu maanaam derub sëñ Tuubaa bépp ñu bëgg koo tilimal ci ak jaayil lii xam nga ne jaaruwul ndax ñii ku leen xam xam nga ne du doo naw loo yoonu murit dag naan ndax lii la sëñ Tuubaa di wate xoolal waa Égypte tey boo fa demoon tey jii ñoom ni nga xam ne ni ñoom moom moom ñoom moom lañ organisé seen seen seen seen réew mais diine ja ña ko fay yëngul lañ fa yor ci ay sëriñ ak si ay chef de tariixa kenn xamul ni mu waaye miss mislaka alfun ji nga xam ne tam la boo xool ma ngi ko fi bind mooy lenn lu kenn di def rek am nañ ci ay junni sëñ tubaa ba mu xëyee ba tey fees dell ko xam-xam fees dell ki jëriñ dégg nga wax ne simaamul war a asri la da lay fi yët yi ñu fas yéene defe na ñoom moom maanaam tàllal loxo rek di dund di yalwaan rek ak a fen moom moom moom la ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa te nii ñu koy defe ci àddina nag jàpp nañ na fi ne ku ci dugg bàmmeel noonu lay mel ba nga ba nga dugg àjjana ñoom loolu lañ yaakaar fi ni ci waru gu métte métte lañ nekk ñii ñoo gàccal ñoo ñoo gàccal ñoo gàccal yoon wi ndax yoon wi fi ne na gën mënoon naa fekk xam-xam bi tasaaroo bi yàgg ba murit yu baree bari jóge ca àll te duñ doon ay nit yi ñuul ñëw dégg nga nekk ay murit saadeex yooyu sëñ Tuubaa doon waaye loolu lépp xam-xam a koy joxe waaye ay jaahil lañ yoo xam si fees nañ del koo fi gis boppam la fi nekkal foo leen gis ñu ngi programme yi ñu ngi organisé fii la sëñ bi jullee woon yow sëñ bi bu fekkente ne fii la jullee woon ñu koy màggal te yow doo julli te mënoo julli julli gu baax njàpp mu baax mënoo ko mënoo laab ci benn côté te ne sëñ Tuubaa nga àndal ngay màggal fu mu doon jullee booy màggal fu mu doon jullee te doo julli yow loolu lu muy nuru sëriñ Tuubaa man ñëpp sëñ Tuubaa nangam te yow mënoo kenn xamoo dara yow yaay yées ci jullit yaa ci gën a nilaar kooku ban importance la waxtu jot ñaan naan diw daa bañ sëñ Tuubaa diw daa bañ sëñ Tuubaa diw bu bañee sëñ Tuubaa kooku yow lan moo ci sa yoon ay nit a ngi fi duñu ay julli te yàlla digal leen ko ñu lànk lan moo ci sa yoon ki bañ sëñ Tuubaa moom la concerné te ñoom fi ne ñoom dañuy jël bal di ko dóor ci seen bopp ñoom ñii ñooy noonu sañ Tuubaa ndax ponkal yu toll nii sëñ Bàmba te yu toll nii yow sëñ Bay te xamee wuñ farata xamee wuñ sunna koo ci laajoon farataam mënu koo wax farata yi julli xamuñu ko dégg nga lenn lenn diine mënuñu mënuñu cee mënuñu ci rek tañ na sëñ tubaa lañ àndal fu ñu toll di baw rek di baw di baw naan sëñ Touba sëñ Touba sëñ Touba te lenn diine xamuñu ko bu ñuy wax noonu sëñ tubaa ñii ñooy noonu sëñ tubaa te jàpp nañ ne nag fi ne moom moom moom ci lañ bokk te ñu ci jàpp nañ ne ci yoon wi lañ bokk ndax murit boo xam si boo nekkoon surtout toog boo ko laajee lan mooy say farata mënu koo wax lan mooy say sunna mënoo ko wax. lenn l'islam loo ko mën a laaj amul waxuma la jëmmam ci te nag la ci yéeme mooy farata yépp bàyyi nañ ko maanaam bëgg wékku ci ne man sëñ Tuubaa laa àndal rek bu ëllëgee moom day na ko yàlla bu yàlla ne jaaral nii sëñ Tuubaa na jaaral ne rek ñoom ñu dugg àjjana ñu fi ne lool lañ gëm de jigéen ñi ñëpp fi mu toll nii loolu lañ gëm am na ci jigéen ñoo xam ñu ngi bitim réew gii seen it yëpp mënuñu mu weesuwul vidéo bu ñu bu ñu génn gis ab di ko wax rek ñu di ko publier ba pare rafet jortu lool ci ne nag maanaam lii dana leen jëriñ dara bu ëllëgee te la leen war duñ ko def duñ julli julli waxtu duñ duñ julli julli gu mat te du ànd akook laam du ànd ak dara amuñu xam-xam ci dara lenn lu leen lislaam ma a jariñoo amul ñoom tamit fi ñu toll nii dugg nañ ci ful bii bu fi ñu toll nii fi ñu toll nii li ci yoonu murit am kër bu màggal gi jotee rek heure bii nag dañuy mel ne ay yambu rek fenn fu nekk nit di naaw di fa jëm jërëjëf